problème boo bëgg la ko waxal bëgg la ko régler léegi bëgg rek bëgg sëriñ bi wax ko par la force bu sëriñ bi waxul nga nga xas ko wala nga saa ko te yaa ngi bàyyi sa bàyyi sa kër te fàtte nga ne sëriñ bi aussi bàyyi jàmbur la bu noppi yow sa bàyyi waxul te ngay xas que sëriñ bi waxul mais kay boo boo waree wax lâcheté commencé par sa bàyyi hmm. bi nga xam ne sëriñ bi it bàyyi la. waaw kay asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baal ñëpp aax te di leen baal aax tey ñaan yàlla mu boole ñu jégal Euh, dafa am benn vidéo bu ma gisoon tey euh, ma ko doon partage ak euh, ñëpp rek doon am jàngat boo xam ne moom laa ci defoon bëggoon ko wax ni pour nit ñi mën koo dégg bàyyi ko xel vidéo bi moo ngi noonu sax maa ngi koy partagé vidéo bi maanaam ki ciy wax dafa wax ne dafa am nit ñoo xam ne suñu amee lu leen dañuy sàkku ci sëriñ yi mooy ñoom seeni sëriñ ñoom dañuy sàkku ci ñoom maanaam ñu wax si suñ ci waxul ñu xas leen te xamuñ ne sëriñ yooyu ay baayu jàmbur lañ te ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy wax ñoo ngi bàyyi seeni baay seeni kër kon su fekkee ne par exemple loolu ñaa sëriñ yi ñàkk a wax yi ñuy ñàkk wax dañuy gis ne loolu lâcheté la kon ñoom loolu nañ ko commencé ci seeni baay mu nekk nag euh, discours boo xam ne xam naa ne. discours bu xoromu la wala boog wax ji wax ju xoromu la ci ki nga xam ne euh, xam nga li nga xam ne moom mooy li nekk ci réew mi par exemple parce que ñi nga xam ne ñooy sàkku ci seeni sëriñ maanaam ñu wax xam nañ ne ñoom seeni sëriñ ay bàyyi jàmbur lañ ndax xam nañ seeni doom ndaxte sëriñ boobu ñuy wax sax mu wax moom Bayam dadonon donon nangam mudon mu don ko wala mamam mo donon nangam tax mu don ko kon ñom xam nañ ne ki bala mi nek sax bayu jambur doomu jambur la wala satu jamur la Balami mi nek sax jamur, jambur doomu jambur la wala satu jamur la xam nañ lolu mu leer len nañ motax sax ñu leen top ñof ndax leen ngir na ñom dañoo def li wala ngir dañoo def la du ben mérite waaye dañ leen a topp parce que diw mooy seen baay wala diw mooy seen maam te yooyu teguwul fenn du lislaam du dara loolu du lislaam loolu ay organisation yu ñu créé la di ci maanaam di ci not nit ñi di ko tuddee diine te dara boolewu kook diine li gën a garaaw sax ay ñal la en réalité parce que soo demee ci alquran yàlla moom lu mu wax mooy wa anna hadha siraati mustaqiman fattabihuhu teg ci ne wala tattabihu subula fa tafarraqa bikum an sabilihi yalla wax ne li moy sama yoon wu jub wi na ngeen ko top te bu len top ñal wi ma te bu len top ñal yi ndax daleni leen suñu yoon nga xamne deug deug manam dafa am lo xamne nit ñi dañ ko wara bayyi xel xam ko ndax ki discours bi wala wax bi mu wax ni wax la bo xamne ñi koy deglu ta doon boromi xel war na tax nag ñoom it ñu commencé di bàyyi xel di xelaat ndax ñoom ña nga xam ne ci ñoom la ñuy sàkku ñu wax ci problème yi ñu am ñoom ñoo dem ci ñooñu ne leen yéen la ñu yaakaar adduna ak alaxira waa comme dañ leen a yaakaar adduna ak alaxira suñu amee ay problème mu adduna kay c'est très normal ñu sàkku ci ñoom ñu wax ci parce que dañ leen a wax ne yéen la ñu yaakaar adduna ak alaxira ñoom ñu nangu ko comme ñoom nag dañ koo nangu ni suñu amé problème aduna adduna war na ci ñom ñu wax leen ko ndax alaaxira mom wax deug yàlla fofu mom amuñ fa dara wax ay wax rek fa nek bis boobu moom waaw moom fa bis bobu mom liko yàlla waxe li manil mulkul yawma lillahi alwahid alqahar yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'an wal amru yawma izin lillah bis boba ben nit amu fa dara ci benen nit bis booba mbir yi kenn képp ko moom muy yàlla amul keneen ku fa am virgule ku fa am dara amul amul ku am dara amul ku fa am dara kon ay yaakaar alaxira loolu moom am naxee la rek bu fi yàgg moom kay nañ wax yaakaar ci àdduna te it ñoom luñ leen di dig mooy alaxira ci te dañ leen a yaakaar àdduna ak alaxira ku la yaakaar àdduna ak alaxira kay da ngaa war a taxaw ci ñaari yëpp waaye fii moom xam nañ ne mënaluñ leen fi dara loolu moom c'est très clair nit ñi xam nañ ko alaxira moom matul sax wax ndax fii sax di nga gis mën nañ fi ami kër am fi ay oto am fi ay doom am fi alal am fi nangam am fi nangam duñ leen dig ci loolu dara dañ leen dig ci luñ amul dara dara alaxira amuñ fa dara bis boobu kenn ko moom te yàlla la bis boobu kenn rek ko moom te yalla la fi nga xamne au moins nak am nañ fi sax ay auto am nañ fi ay kër am nañ fi ay yére am nañ fi ay doom am nañ fi alal am nañ fi nangam digul ñen fi dara mënuluñ ñen fi dara it en plus xana au moins nga fekk nit ko xamne dafa am alal di len ko xëpp su amé jafe-jafe ñu dem demander intervention wala nangam loolu mom fi la ñi amul dara moom wu ci sax seen bop mom jaru suñu ci boole seen bop ndax gis képp suñu ko bëggoon def dañuy am problème kon loolu moom lu taxawul fenn la su ñu waxee ne léegi ñoom lañ yaakaar adduna ak alaxira ñoom lañ yaakaar adduna ak alaxira suñu amee problème ci adduna c'est très normal ñu ne ñoom nañ ci wax léegi nag waa jii mu ne ñooñu ñuy sàkk ci ñoom ngir ñu wax ay baayu jàmbur lañ mais est-ce que ñi nga xam ne par exemple dañuy dem ñoom xamuñ ne ñooñu ay baayu jàmbur lañ mais dañoo romb seeni baay yañ bàyyi si kër ga. dañ leen faa romb dem ci bàyyi jàmbur na ko yow lañ yaakaar àdduna ak alaaxira bàyyi jàmbur boobu di sëtu jàmbur di doomu jàmbur te moone soo demee ci alquran yàlla digalu leen lii ñuy def nii ñoom dem ci bàyyu jàmbur naan ko yow lañ yaakaar àdduna ak alaaxira yàlla digalu leen ko ndax yaakaar googu ñuy wax ci ñooña yàlla lañ war a yaakaar du ñooñu lañ war a yaakaar su dee ak rafetal yàlla lan la leen digal lu mu wax waabudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsaanan yàlla mu ne liggéey leen yàlla liggéeyal leen yàlla te bu leen ko bokkaaleeg dara te mu ne te ngeen rafetal ci seeni ñaari waajur yàlla rafetal ci seen ñaari waajur la wax de waxul ngeen rafetal jëmee ci waajuru baayu jàmbur maanaam ci waajuru jàmbur balaa muy wax leneen balaa muy lim ña ca topp ci seen waajur la tàmbalee kon ñoom si ñoom ñi nga xam ne ñooy sàkku ci ay baayu jàmbur ñiy wax baayu jàmbur yooya ak ña àndoon ak ñoom di leen xoromalal di leen saf-safalal ñoo gëmloo nit ñi ne ñii nii mënal nañ leen dara ëllëg ñoo gëmloo nit ñi ne ñii mënal nañ leen dara ëllëg ne nyom ñom dañ leena wara yaakar aduna ak alakhirah nit ñi di ñew ci seen kanam di wax ne yeen lañu yaakar aduna ak alakhirah ñom ñu nyom ko kon kay ñom buñ ci daw dara nañ ko assumer ndax lo xamne ñom ñoko tuddo ci seen bop yalla joxu leen pouvoir bobu lolu sax far dafa amul sax ci diine suñuy nax nit ñi dañuy wax naan waaw wasila mënul ñak nangam nangam di wax ne ya ayuha alladina amanu taqullaha wabtagu ilayhi alwasilata wajahidu fi sabilihi laallakum tuflihun ay wa yéen ay bob limi wax li ngeen wax dara dako bolewul dal dana ay yéen ñi gëm yàlla baye len xel yàlla ta sàkku ci mom ap wasila moy lo xamne moy tax nga mën ko ma nga mën ko jégué lo xamne moy tax nga mëna yegg ca mom muna wajahidu fi sabilihi yàlla waxul ne ngeen farlu ci yoonu wasila ba de parce que wasila bu am yoon amul ñun lii wax nañ ci depuis des années depuis ay 2017 2016 ñu ngi ci wax wasila bu am yoon amul te dinaa wax sa lan mooy wasila dëgg-dëgg wasila bu am yoon amul wa jaahidu fi sabilihi yoon woowu yoonu yàlla la yoon woowu yoonu yàlla la wasila amul yoon te fii da ngay gis ñuy wax ay wasila lañ kenn ku ci ne am aw yoonam yooyu ay ñàll la comme ni ko yàlla waxee ci alquran rek wa anna haza siraati mustaqiman fattabihuhu wala tattabihu subula fa tafarraqa bikum han sabilihi lii mooy sama yoon wu jub wi yoon woowu wenn yoon la de islaam la amul weneen yoon ñi ci nekk duñ tuddoo neneen duñ ay suufi bokkuñ ci benn tarixa bokkuñ ci benn xaaj duñ ay salafi duñ ay wahabi duñ dara ay muslim képp lañ yoon woowu ña cay nekk ay muslim képp lañ ndax yoon woowu wenn yoon la te islaam la yàlla mu ne lii mooy sama yoon wu jub wi nangeen ko topp te bu leen topp ñall yi kon yoon yooyu ñuy moomale ay wasila loolu ay ñall la du yoon ay ñall la yoon ak ñall moo fi ne yoon wi nag yoonu yàlla la ñal yi nag nit ñee ko créé ñu xaaj boo fi tudd ak turam ak ña ca nekk nañuy tuddoo ay ñal lañu yàlla mu ne te bu ñu topp ñal yi ndax ñal yi dañuy tàqaleek yoon wi yoon wi islaam la la ca topp ay ñal la kon ku topp ñal yi tàqalikoo nga ak yoon wi moo tax sax ñuy am yeneen i tur seen ñàll ya di ami tur ñoom ña ca nekk tamit di ami tur waaye yoon wi moom islaam la tudd ñi ciy nekk ay muslim képp la ñuy tudd amul beneen tur yoon woowu nag ñi gëm ñoom ca la ñuy dox wasiila mooy lan dama koy misaal soo su fekkee da ngaa dëkk ci kër boo xam ne étage la nga bëgg dem maa nga jugee rez-de-chaussée bëgg dem premier étage escalier bi ngay jaar pour dem premier étage escalier boobu mooy sa wasila ci nga yegg ci premier étage est-ce que wasila boobu di escalier bi est-ce que da koy topp naan ko yow laa yaakaar àdduna ak alaaxira déedéet daa am foo bëgg a jëm te ci moom nga mën a jaar ba yegg fa léegi nga jaar ci foofu ba yegg fa noonu la demee su fekkee ne par exemple dama bëgg a jàng benn domaine de connaissance ñu ne domaine de connaissance boobu école bii moo koy jàngale nga dem ci école boobu jàng fa ba am diplôme ba nga fa soxla école boobu mooy sa wasila ngir nga jot sa diplôme bi nga soxla su dee ñun fii li ñuy wax wasila par exemple ki nga xam ne moom mooy ki nga xam moom moo la jàngal ba nga xam ne nga war a xam kooku sa wasila la waaye est ce que kooku da nga koy topp naan ko yow laa yaakaar àdduna ak alaaxira déedéet woo ko loolu dafa am loo bëgg a xam war la koo xamal xamal la ko point foofu la léegi nag rafetal gi ngay rafetal sa diggante ak moom loolu yow la sa diggante ak moom mais nekkul na moom nga yaakaar sa diggante ak sa borom rawatina sax nga naa ko yow laa yaakaar adduna ak alaxira loolu ak réer gu mat sëkk la te loolu moo fi nekk bu yàgg ba léegi ñu ñuy tuddee ay kilifa di ko maintenir di ci nax nit ñi di dund ci seen kaw alors que loolu teguwul fenn du diine du dara ndax ni ma koy misaalee bokk na ci dinaa wax tamit ne dafa mel ni man ma jugoon ne dafa am benn barab bu ma war a dem bi ma waxee ne damaa bëgg a dem barab sàngam ñu ne barab sàngam de diw sàngam mii xam na ko bi ma demee ba ci diw ne ko ah man de barab sàngam laa bëggoon dem mu ne man mën naa la faa yóbbu mooy li léegi léegi léegi diw na ma bismillah nañ dem waa comme yow foofu nga bëgg dem sax ma lay man ci ci baay ma yóbbu la bi ngeen àndee nga topp ci ginnaawam ngir mu yóbbu la fa nga jëm dalay wan yoon wi est-ce que est-ce kooku yow da yow topp gi nga topp ci ginnaawam mu lay yóbbu fa nga jëm est-ce que da nga koo war a bëgg wala nangam. bëgg pour la so soxla woo di ko bëgg di daa am foo bëgg a dem moom taxulaa jug fa nga bëgg a dem moo la tax a jug yow kon isa yow da nga ko war a bëgg déedéet est-ce que da nga ko war a yaakaar adduna ak alaxira déedéet parce que taxulaa jug taxulaa jug yow fa nga bëgg a dem moo la tax a jug mais yii duñ ko leeralal nit ñi dañuy ñëw di leen wax ay baat yoo xam ne duñ ko firi mukk ci olof ay baatu wasila nangam nangam comme seen baat yi ñuy faral di wax noonu teguwul fenn léegi nag nag ay nit ñoo xam ne nit ñi wax nañ ñoom ñoo taxaw ne ñoom ñooy nangam nit ñi ne leen yeneen nangam ñoom ñu nangu na ñoom ñooy nangam nit ñi am problème mu àdduna alaaxira yeggaguñ fa ñëw di sàkku ci ñoom ñu wax ci ñu ne maanaam ñoom dañoo léegi ñu ne ñoom ay bàyyi jàmbur lañ ñoo ngi bàyyi seen i bàyyi seen kër su fekkee ne mbiru lâcheté la kon nañ ko tàmbalee ci seen i bàyyi mais lii xeetu discours bi est-ce que ki koy wax moo ngi koy bàyyi xel mais discours bu am solo nag ci borom xel yi kon nañ xam ne kon ñoom li leen war a yitteel mooy seeni bàyyi li leen war a yitteel mooy seeni waajur comme ni ko yàlla waxee ne waabudullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsanan yàlla bi mu waxee boppam waajur la ca te tegu ca sëriñ de liggéey leen yàlla te bu leen ko bokkaleek dara ñu gars wax nag maam jaamu leen yàlla mais baat bi loolu loolu lay firi dëgg-dëgg liggéeyal leen yàlla te bu leen ko bokkaaleeg dara te ngeen rafetal ci seeni ñaari waajur yàlla bi mu waxee boppam ñaari waajur la teg yéen nag xamal nañ leen na leen ñii ay baayu jàmbur lañ yéen a ngi bàyyi seeni bàyyi seeni kër kon ñu ngi leen di wan na leen baayu jàmbur yi ñoom ni ngeen doone ay doomu jàmbur ñoom noonu la ñu amee ay doom ñoom it kon yéen li leen war mooy ngeen toppatoo seeni baay li leen war mooy ngeen rafetal seen diggante ak seeni baay nga xam ne su ëllëgatee su ngeen amatee problème ngeen xam ne kon seeni baay ñoo ca war a wax yéen su ngeen ca mënta wax seeni baay ngeen wax loo leen ca baay jàmbur yee ngeen waxoon ne ñoom ngeen yaakaar àdduna ak alaxira te loolu di ak réer réer la gu mat sëkk ci islam yaakaar ku dut yàlla ab jullit du ko def yaakaar ku dut yàlla ab jullit du ko def ab jullit yàlla lay yaakaar rawatina sax ñu naan adduna ak alaxira te ñii ngeen wax ne ñoom ngeen yaakaar adduna ak alaxira munuñ ci yéen dara alaxira moom waxaalu ko adduna laay wax sax munuñ ci yéen dara alaxira moom dañ faa amut dara dañ fa amut te rawatina sax ñoom lañ leen di woo ay ñàll la du islam la ngeen di pratiquer wax nañ ko fi ay yoon la ngeen di pratiquer sax di ko tuddee diine yu ay nit sos la dugal ko ci mbir yi. du sax diine te loolu ku dem ci téere bi yàlla yaa koy xamal sa bopp kon nit ñi nañu bàyyi xel tey yeewu lii fi nekk ay nax kese la te jamono bu ne mu ngi gën a feeñ ay nax la kii nag discours am bii jàpp na ne discours fulla la waaye discours njuumte la te diskuur bii wane dëgg-dëgg seeni melo fi ñu taxaw la kon nit ñi nañ xam ne yàlla boppom la leen lijjantiloo wax naa fi loolu maintes fois ëllëg yàlla du kenn yàlla du laaj kenn lan la la diw sàngam waxoon yàlla yónent yi lay wax ne ñamu yónne woon ca ñoom dana leen laaj yónent yi it ñoom dana leen laaj ñii kenn yónni wu leen de te nekkuñ sax ci yoon wu ñu leen yónni yoon wi moom islaam la ñii ci ay xaaj lañu ne am seeni turu bopp seen xaaji amuy tur yàlla moom aw yoonam wenn yoon te ñi nekk ci xaaj-xaajaat yi soo yen demee ci alquran yàlla dane ay bokkaalekat lañu ku dem ci surat 30 muy surat ruum nga dem xool aaya 31 32 di nga fa fekk loolu man mii di wax samay baay samay maam ci ñall yii lañu ne woon man mii ci ñall yii laa juddu man mii ci ñall yii laa màgg lii lii nit ñi gëm ci ñall yii loolu lañ ma jàngaloon ñaari aaya yii may wax te ñu nekk sóoratu ruum ñaari aaya yii moo tax ma génn ci ñàll yooya damay wax nag sama yeewu ci ñaari aaya yooyu la jaar mi muniibiina ilayhi wattaquuhu wa aqimu salaata wala takunu min almushrikin min alladina farraxu diinahum wa kaanu chiyaan kullu hizbin bima ladayhim farixuun yàlla di wax ne tuub leen yàlla mu ne nañu tuub dellu ci moom yàlla te maanaam tey bàyyi xel moom yàlla tey taxawal julli te bu ñu bokk ci bokkaalekat yi bi muy leeral bokkaalekat yi lan la wax dane mooy ñi nga xam ne dañoo xaaj seen diine def ko ay xaaj xaaj bu ci ne di ndamoo la mu yor loolu mooy li fi ne ay kuréel yu bari ñoo fi nekk kuréel bu ne jàpp na ne lam nekk mooy dëgg yàlla mën a ñooñu ay bokkaalekat lañ te su ngeen demee ci alquran di ngeen xam ku dem ci suuratu taw ba suurat surat 9 verset 17 yaay gisal sa bopp boo bokkaalekat yooyu yàlla da leen a santul sax ñuy julli julli da leen koo santut moo tax it gis ngeen sax na ñuy jullee ak la yàlla jàngale du benn bokkaalekat yooyu yàlla da leen a santul sax aji wax nañ ko fi loolu depuis 2017 ku ko ci defit sa xaalis ngay yàq képp ku nekk ci yooyu naan da ngay aj wala da ngay julli sa xaalis ngay yàq ku dem ci suuratu ba aaya 28 yaa ko fay fekk ci li ñu wax ci wàllu aj su fekkee ci walu julli ko dem ci suratu tawba ayat 17 ya ko fay fek yàlla mo jàngale li ma kana lil mushrikina an ya'muru masajid allahi shahidina ala anfusihim bil kufri ulaika habitat amaluhum wa fin nnaari khalidun bokale kadi yàlla lim ci wax neena waru ci ñom sax ñuy dundal ay jakam ndax ñoo ñooñu dañoo sédé ci seen bop ak weddi di jox ak kéfer yàlla aw yoonam la tëral ñu ñëw xaaj seeni yoon kenn ku ci ne di wut lu muy tuddoo ña ca nekk di lu ñuy tuddoo di wut yaakaar keneen ku dut yàlla nag rawatina ñenaan naan dañ leen a yaakaar àdduna ak alaxira léegi xamal nañ ñen ña ngeen doon yaakaar àdduna ak alaxira ay baayu jàmbur lañ yéen am ngeen i baay kon toppatoo leen yéen it seeni i baay baayu jàmbur yooyu seeni doom toppatoo leen ndax ëllëg yàlla du leen laaj baayu jàmbur yooyu. yàlla la muy santaane ci waajur la ko santaane wax fit lahuma janaaha dulli min arrahma waxul rabbi irhamhuma kama rabbayani saghira sagira wala tanharhuma waxul lahuma xawlan karima wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma waxul lahuma xawlan karima noonu la ko yàlla jàngalee ci alquran de ku dem ba ci surat 17 nga xool lu commencé aya 23 ba trent 39 wax yii dañ ko fa fekk ay xikma la mi ay sagesse la yu yàlla jàngale yàlla tudd fa sëriñ de yooyu ay nax la wérut du diine islam loolu ay création yu nit ñi créer la ngir di indi ay classe ci diine diine amul ay classe ñi ñoo nekk ca kaw ñi ñoo nekk ci suuf loolu amul ci diine ay nax la ay nax la yu fi yàgg ñëpp a ci yem. ñëpp a ci yem ay nax la ku ci nekk di gëm loo loolu nit ñi rek day naxaate ku mu mën a doon nag moo xam li muy wax wax ju xaw a nuru dëgg wala nangam ñëpp a ci yem loolu wérut du diine yàlla jàngale wu ko lu yàlla jàngalewu du diine saxul du islaam moo tax yeneen tuur la yooyu am moo xam ay tasawuf wala nangam yeneen tur la am loolu ñuy dund ñoom lañ nekk yeneen tur la am loolu tuddul islaam leneen la tudd yàlla lii la wax te mu ne ñooñu bokkaalekat yooyu dañoo màbb seen i jëf cest à lu ngeen mën a def lu mën a doon jàpp ne lu baax la nangam yàlla mu ne ulaayika habitat amaluhum ñooñu dañoo màbb seeni jëf te mu ne ci safara la ñuy sax kon nag yéen a ngi dundu deewagu leen lu mën a xew maa kon yéen a ngi dund deewagu leen lu mën a xew jël leen seen responsabilité dañ leen ci loolu ba set dem ci islam dem ci yoonu yàlla amul daraay xaaj benn kilifa la am ña ca nekk. yàlla moy sen kilifa amuñ benen kilifa kon yifi nek ni ay nax la loolu teguwul fenn su ci walu acc yàlla lim ci wax moy ci suuratu tawba surat 9 verset 28 bima ma wax mu ngi surat 9 verset 17 yàlla wax ne ya ayyuhal ladhina amanu innama almushrikuuna najasun fala yaqrabu al haram ba'da aamihim hadha yàlla kat yi rek la wax bay wax ne nak yàlla waxul ay jëm ay melo lay wax ña nekkoon bokkaalekat ca la jiitu ak ñi nekk bokkaalekat ci ñu mujj ñoo bokk yem bokkaalekat képp lañ ñañ daan tuddee bokkaalekat la ñu defoon képp fii ba àdduna tukki képp ku ko def bokkaalekat nga yàlla su ne ñi xaaj seen diine ay bokkaalekat lañ ñi xaaj seen diine ak fu mu mën a nekk ay bokkaalekat lañ loolu mooy li am kon lii na ko nit ñi bàyyi xel xam na fii kenn fi ne yàllaa fi ne ku bëgg a noppalu bàyyee ko sa bopp. ku bëgg noppalu wéerul ca mom ku bëgg noppalu topal ay waxam ku bëgg doon julit bu wér topal ay waxam di jëfé loolu li fi né képp ko xamné nak manam ragal nga am mbetteel ëlëk topil waxu yalla ku ko ci topu ëlëk da nga am mbetteel gëm naan waaw ñun bokalé wuñ nangam yalla jàngé nonu loolu ci man ci alcorane ñoo xam ne dañuy dem ba bis pénc mu ngi nekk ci suratu anaam maam mi surat six dañuy dem ba bis pénc ñuy wax ñu naan wallahi ñun nekkuñu woon di bokkaale kon nit ñi nañ xalaat de yii ñu nekk nii xamal nañ leen ne ñii ay bàyyi jàmbur lañ am ngeen ay bàyyi dem leen toppatoo seeni baay am ngeen ay waajur dem leen toppatoo seeni waajur loolu mooy li wér lu fi waaye nekk lu dul loolu day day tardeel boppam yii ñu gëm loo nit ñi du diine du dara te ñoo ngi koy commencé feeñal segam léegi ñu ngi wane ne ñooñu ñuy wax ne dañoo war a wax ay baayu jàmbur lañ kon ñoom nañ xam ne kon am nañ seeni i dañ dem toppatoo seen i bàyyi baayu jàmbur yooyu seen doom toppatoo leen kon dëgg-dëgg loolu mooy li ñoo ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di baalu ñu te di leen baalu aax tey ñaandi yàlla mu boole ñu jéggal jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum waaw te it nag li ma ci bëgg a teg it mooy man li may wax man bokkuma ci benn kuréel bokkuma ci benn parti politique observateur laa lii xew ci réew mi dama koy jàngat dama koy xool kenn ku ci ne na bàyyi xel loolu macha allah sant yàlla te it ci réew mi daa bokk jërë ngeen jëf wasalaamaaleykum